tey dina xat pour ñu mën a wax ci ay Sonko Adji Sarr ay jugement waaye du xat pour ñu wax ci jàmm ci Sénégal parce que tey màggaluk tey gii rek gerefu transporteurs yi du ma ne laal na màggal gi waaye sonal na taalibe yi lool ndax génn fi nga nekk ñëw fii ci réew màggal gi lu jafe la te loolu ñun ak taalibe yi bokk nañ ko dundandoo kon loolu nga wax muy jëmmi procès Ousmane Sonko bu doon ci procès ak waxtaan rek ci politique ak waxtaan ci politique dama lay wax ne loolu xaju fi waaye bu fekkee waxtaan ko te jàmm rek jàmmi réew mi am dama lay wax ne loolu rek lañ war a waxtaanee parce que réew mi ñun dañ ko bokk jàmm rek moo mën a am màggal yi di am ngénte yi di am. soirée yeeg dansine yeeg fecc yeeg bëre yeeg lépp ci kaw jàmm la sax euh, mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko na daf fe jaaroon ba xañoon réew mi jàmm ba ñëpp bokk ko yëgandoo ba réew mi eggoon ci situation boo xam ne police mënu ko woon a régler gendarmerie mënu ko woon a régler armée mënu ko woon a régler président Macky Sall miñ jox réew mi di ko ko régler sax dem na ba xam ne lii mënatu koo régler ba moom ay kilifa ñoo ñëw ñaan. moom itam mu génn yëkkati ay kàddu yu ñaan ngir réew mi dal ngir réew mi dal kon suñu demee ba yàgg la kilifa diine ñaanoon ba réew mi dal ñu yëg ne loola dañ koy bëgg a yëngalaat li wolof naan picc mu ñuul picc mu ndëbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw loolu rek moo ci am kon ku nekk moom ba ci président Macky Sall moomu sax tiit na ndax xam na ne am na ay fani fani fan yoo xam ne bëgg naa dox soxlaam wala mo bëgg a dox ay activité mënu ko ngir ci mi procès Ousmane Sonko ak Adji saar kon même moom bu ko jàppaatee xam naa ne waaj na ko de waaye dana tiit gendarme yeeg police yeeg ñëpp ba ci général Moussa Fall ak euh, ñoom Antoine ak ñëpp fii ma toog nii su ma génnee suma buntu kër bi kër gi may jàkkaar lool magi Moussa Fall moo fi dëkk bu jigéen kon ñun ñëpp benn famille lañ xamante nañu ci sunu biir kenn ku nekk nag mën ngaa yéene jàmm mën ngaa wooteew ay de waaye booy aw ay accès di nga xam ne lii aw ay jigul kenn tey nag duma ma bu toog wal fajri du ma chroniqueur bu toog ca Seneweb ca Aïda Mbène waaye damaa nekk kilifa diine bu toog ci sama ëtt yendoo jàng alxuraan maak samay taalibe yendoo ñaanal waliyu yàlla kon yaakaar naa bu ñu ñaanee yàlla na ko def ñu ñaan ci yàlla jàmm jàmm ci réew mi waaye di ñaan président Macky Sall en tant que guide religieux mu delloowaat xelam ci jàmm parce que nag suñu waxantee dëgg tamit France rek bi ñu defee élection législative kenn amul majorité comme li dal Sénégal semaine matu ko dañoo daal di woote dialogue Emmanuel Macron woote dialogue ñu bokk toog xool comme que kat réew mi kenn population bi ñooy fal te wóolootuñ kenn kenn ku nekk dañoo dagg aw morso jox la ñun ñiñ jox morso yi nan bokk toog waxtaane morso yi ñi ñu ko jox nan la ñuy def ba seereel leen seen seen situation mais Sénégal bi fi loolu amee ba tey man gisaguma benn jéego boo xam ne président bi def ko dox pour jàmm am ci réew mi loolu nag am réew buñ la ko dénkee nga dem ba rëy pour dox jàmm wala nga rus pour dox jàmm loolu njiit du doxee noonu kilifa du doxe noonu maa koy ñaan mu dello siwaat waat xam ne réew mi su amee jàmm li bëgg ci la koy am bo amut jàmm tamit ñun ñëpp ñooy bokk ñàkk jàmm jooju. xëy na man xaw ma nu mu demee waaye ëttu sëriñ si moom euh, boo dee koo xam ne xaw ngaa sori. ci euh, ci ci ci ci ci maanaam dëkkoo ci biir dëkk bi miinoo ko xëy na amaana même bu dul Sonko sax gis sëriñ bi mën na laa jafe même bu dul sëñ euh, bu dul Ousmane Sonko gis sëñ Mountakha ci boppam moo yombul rawatina soo fa amul euh, loxob ndeyjoor wala loxob càmmoñ xam naa loolu moom xëy na mën naa am ña ko def aj ko ci politique mën naa am sëriñ bi rek moo jafe waaye lu mën a am rek mooy Ousmane Sonko moom toll na ci réew mi moom foo xam ne. dañoo maanaam gis Serigne Mountakha waratu koo jafe loolu moom fu mu mën a jóge rek ñu ngi ñaan kooka buntu ba ko la tëj buntu ba na ko tijji ndax koo xam ne euh, dafa toll ci ñi naan mën naa yorum réew ak mënu koo yor ki yàlla teg ci bopp dëkk bi nga xam ne mooy moo bu bu bu dogalee ñëpp ànd ak moom kooka ku ko bëgg a gis da nga koo war a gis rawatina nak ku mel ne Ousmane Sonko maa loolu moom moom maa yàpp naa ne nag daray politique lalu ko ndax sëñ Mountakha moom politique politique lut waaye nag dafa yombul ndax day mag. tey responsabilité yi dafa bari. tey nag yàlla xam na ne bi ma xëyee ak léegi xooluma internet xooluma télé xooluma rajo waaye jàpp naa ne euh, man amul amul lu may euh, bu dee Adji Sarr dafa maa def plainte loolu ànd naa ci ak xel mu dal sëkk parce que yaakaar naa ne Adji Sarr euh, bokk naa ci nit ñu ëpp lu ñuy wax ci moom parce que moom dafa nekk actualité boo xamante ne dafa tëw a jeex depuis deux ans. waaye yaakaar naa ni benn yoon boo xam ne yëkkati naa sama kàddu gii wax ko loo xam ne du dul noona la wala yàq ko tax maa jóg wala yooyu moom musul am te yaakaar naa boo amee mën nañ maa vaar ñun li ñuy def du ay aji saar du ay sonko du ay loolu ñun li ñuy def mooy dëggi Sénégal mi Sénégal lu doxal réew mi ci la ñu nekk. Euh, amuñu nag benn problème loolu yëguma ko yàlla xam na ko yëguma ko mais suñu ko yëgee tamit amuñu ci benn problème parce que ñun ay citoyen Sénégal lañ. suñ ñu porté plainte te yoon woolu ñu danañ ko dem wuy ji buñ ñu amee lu ñuy laaj dinañ ko tont waaw waaye nag euh, yaakaar naa ne daal man sequma ak Adji saar lu war a tax mu di ma porté plainte no nit nag boo koy porté plainte dangay ngay wax ne lii la ma sosal daal man yaakaar naa ne mësuma sosal benn nit mësuma sosal kudul aji Adji sax duma ko sosal man ñi saaga sax duma leen saaga ñi may tooñ sax baal naa leen man li ma tax a jóg defar la defar la waaye du du du du du kii dégg nga du affaire ay ay ay ay ay ay affaire Adji Sarr mosuma yëkkati sama làmmiñ sax di ñaan yàlla maanaam lu dul jàmm dal man li ma waa xam nga ñun wet giñ ñu nekk daal mooy euh, Ousmane Sonko woowoon nañ ko mu nangoo dem te teewul fitna amoon na jàpp naa ne dugg ci di ko woo ak di di di di yooyu daal maanaam yëpp dafa nekk loo xam ne fitna lay indi te enjeu politique bi ci am tamit mooy dañuy jàpp ne rek lépp mooy tere ko mu dem 2024 nekk candidat su fekkee enjeu boobu politique boobu daf cee dugg moom lépp lu politique dugg amul menn réew moo xamante ne tàkk na te politique taalu wala ay ressources jàpp naa ne enjeu politique boobu nag kuy xeeb loolu da xamul li xew ci àdduna bi waaye loolu mën naa jël réew mi def ko dóom. te nag réew mi loolu ñun ay kilifa lañ ñaanuñu yàlla loolu voilà parce que ñun politiguñ man àdduna du yàgg ba nga dégg ñu ne maa jiite réew mi wala maa nga ca assemblée ba wala maa nga ca mairie man faluwuma faluwuma aw may parti aw may mouvement aw ma sax groupe whatsapp kon lu si intérêt Sonko ma Sonko man dëgg laay défendre dëgg googu may défendre bu doon ci yow la nekk tey ma ànd ak yow tey défendre ma Ousmane Sonko défendre ma kenn tey yaa ngi nii yenn ko sama kër li fi nekk ci ay taalibe parti yëpp ñu ngi ci biir man ay junni junni taalibe ñoo ma yaakaar ëpp naa di topp ci Ousmane Sonko di ko défendre wala may topp ci keneen di ko défendre waaye nag défendre dëgg su fekkee Ousmane Sonko ci la dëgg gi nekk dinaa ko défendre parce que damay défendre dëgg. soog yi moom mesures yi état bi jël dafa am yoo xam ne baaxut parce que oto tubaab a ko defar defaral ko ay làmp pour muy daw guddi suñ demee ba fii ci Sénégal ñu ne oto du daw guddi. kon dañoo waroon a def benn mesure mooy bis bu la romb ñu ñu ñu ñu daal di jël lamp yi daaj dindi lamp yi wekki lamp yi biis su ko defee kon ñu biisu duñ mën a daw guddi la fait que rek oto yëpp di am lamp moo lay wax ne oto day daw guddi benn oto nag mënta mënta mënta mënta accidenté ca 23 ca 3 heures du matin ca xaw ca Kaffrine nga jël mboolem oto yëpp bëgg leen a boole sanctionné loolu dafa am lu ci waroon a jàngate rek dindi ko mesure yi nag man bañu ma yëpp. am na ci yoo xam ne dañ ko war a def muy ay visite technique yeeg yooyu yëpp dañ ko a def mais 23 heures fu mu fekk ab oto ñu gaare ko man sama taalibe yi barki démb bi ñuy ñëw ziar bi daanaka xaw nañ leen a fanaan loo tali bi dañoo mujj wàcc jël ay oto yu ndaw fayaat lu ñaar fukki junni doog a ñëw chauffeur ba noonu lañ ko fanaanale ci kaw tali ba te boobu 23 heures rek moo jot chauffeur boo xam ne tey ji mën ngaa déparé fii na Dakar nga jëm yàlla dogal 23 heures jot da ngay xamoo fooy fanaan ci àll bi tey loolu dafa nekk ay insécurité ak chauffeur bu départ léegi jëm Ndakaaru mu wóor ko ne bu 23h jotee dootu daw ko mën naa daw xel woo xam ne dana ko accidenté loo donc heure bi moom loolu dañ ko war a dindi immédiatement buñ dindee heure bi nag man leneen li ci des lépp am na lu ma d'accord ak am na lu ma d'accord ak chauffeur si waaw xam naa daal loolu laa ci am xalaat accident yi nag ñu ñaan yàlla parce que affaire u ñaan tamit bokk na